buy ambiance nag tegal ci loxo Assane Ndiaye. kiro de. booy non booy la booy lañ doon bañ a kii. daanaka bi la. non daa maa gis maa gis ah yaa gis. maa gis kon nooy waajale nooy waajale. waaw ñu ngi koy waajal di santaat yàlla bu baax a baax. di santaat suñu waa ko ñu Diarra ñu ngi lay nuyu. Baye Mass ñu si jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu sa diggante ak mbaytin booba léegi ci loo nekk. waaw maa ngi sama ruq rek nekk si la ma war a nekk mbër moom yaakaar naa boo amee si loo jógee maanaam du ay wax ngay defati quoi da ngay da liggéey quoi waaw pour ñëw boo ñëwee am leneen loo wane quoi waaw. xarit sa doomu si Cisa jëm ci journée bu mag diggante ma Cheikh si Jamono euh, na ngeen topp nga toll ci préparation. waaw di ko ñaanal sama grand la quoi di nekk nit ku baax di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla defal na ko fa ndam lu sedd ci barke Seydina Mohamed ndax wax dëgg yàlla sonn na ci combat bi loolu liggéey di ko si ñaanal yàlla may ko si ndam lu sedd ci waaw. xam nga adversaire mu bëri muy Cheikh Super Diamane. non xam naa ko seeraan naa ay combat yu bari waaw seeraan naa ko ay combat yu bëri champion la quoi nit nag bu fekkente ni da ngay daj da ngeen moom il faut nga nangu ko mu doon quoi nga mën a xam ne man daan naa mbër quoi ne nit tant que yaa ngi suul jëfam rek Issa Amady di bëri nit di ko minimiser boo ko daanee yow da ngay jàpp ne yow daanoo mbër quoi Issa Amady mais Cheikh Super Diamono ku nawloo la champion la vainqueur la ay champion la fi daan di ñaan yàlla nag bis boobaa ñu yàlla may ñu ndam si kawam quoi. seen ko ñu xeex ñoom ñaar ñu xeex. ah seen ko ñu ñoom ñaar. waaw dinañ xeex nag mais naxante bi mooy ëpp quoi waaw xeex ndax boo ree xool ñoom ñaan ñëpp ay demkat lañ quoi dañuy song. te super jamono day song Ziz a day song mais Ziz moo ko xaw a kii tuuti ndax Ziz day faaj quoi waaw mooy loolu. mais Ziz bu lay doon. waaw dama koy jël rek a am pet xam nga waaw fi mu toll nii mooy lool ni ko doom yaay su ma soñoon léegi lii di ko éviter léegi lii di ko def mooy lool ci suuf nga koy wax. waaw waaw non loolu du wax kaw quoi waxu suuf la. oui combat bi ñoom ñaar combat bi yàgg diire. non non yaakaaruma ko ñoom ñaar ñëpp ay borom jom lañ quoi yaakaaruma si loolu mu diire lu yàgg sax duñ yàggal kenn ñoom ñaar. ku gaa wax ah non man maa ngi tuddee kan. non man maa ngi toog di déglu rek. Ah. waaw maa ngi toog di déglu rek. ay combat revanche nga bëgg wala ay lu yomb. waaw man loolu gars dañ ma koy wax non man baax na lu yomb baax na la la rek lu mu gën a metti baax na waaw waaw lu ñëw baax na waaw. sama doomu de Idi ñëw seet amul benn problème maa leen di fay. si loo nekk. sama ruq di sant yàlla rek. maa la gis laa gis. waaw loolu am na. gars wala wala ci ci ci ménager wala ci adversaire yi. su ménager de si adversaire la parce que dañuy wax combat ba muy di waaj a sotti mu yàqu te du ma xam lan moo koy yàq. te instant gars yi nañ ñu ñëw jël instant yàgg na de toogaay bi yàgg na dañoo def fi ay preuve lu leer nañ ñi Sénégalais yëpp teg seen bët kon yoon la xale yi ñun suñu biir ñuy bëre suñu biir waaw gars yi nañ ñëw ñu bëree. waaw ñaar combat nga def ñaar combat 4 am am si benn defet ak ñaari machine yi waaw actuellement bëgg ñu jox la ko ku ñëw baax na ne nekk koo xamante ne nii nekkul ku njëkk a bëre rek nekkul premier combat mais nañ ma jox ñoo xamante ne nii def nañ fi dara ñoom tamit comme li ma def ñu jox ma leen ñu tolloo doole ñu ñu ñëw ñu bëre ku ma ëpp sax bañu ko mais nañ ma jox ku def dara ci làmb ku si mel ni kan ah du ma cité lem mbër bu ñëw baax na man mosuma taamu ndax mosuma gis sama adversaire bu dul si géew ga ñi am quatre combats ba jëm kaw. ok yow daal premier combat ngay bañ. mu premier ak deuxième laay bañ. waaw waaw kon troisième combat quatrième combat jëm kaw. waaw amul problème loolu bañ. idée si ay loolu idée si ay. ah loolu sama doomu ndey jaay idi. waaw kon kay jeex na bàyyi naa loolu seen loxo kay fu mu toll nii man pare naa démb. bàyyi ko si loxo idi bu ko bàyyi sama loxo de. non loxo yéen laa ko bàyyi. bàyyi tey soog a ñëw barki arxuraan bu nekkoon suba la ma dem bëre damay daan. waaw te lamb maa mun la maa ëpp doole moo fi nekk. waaw waaw waaw pare nañ ko ñu ko war a pare Ziza ku ko xool xam ne moo ngi si état ànd nañu digne gis naa tamit lép loo xamante ne nii maanaam lu mbër di def la pour am dam def na ko pare na physiquement mentalement moralement léegi lu ñu koy ñaanal mooy bis ba rek mu ñëw Cheikh Super Jamono ñëw si jàmm moom mu ñëw si jàmm ñu jàpp ko daan ko jëlee bu gaaw te xam naa ne am naa yaakaar ne da koy daan. xeex ñaar kan la avantage xeex bi ak bëri. xeex bi Ziza dina si amee avantage ndax bu dee relance moo tuuti. waaw mais bu mu ko bu mu ko ba mu ëpp. mais xe. bëre bi na ñoom ñaar. bëre bi Ziza Ziza am na si avantage tamit. ndax ndaanaan la mun na bëre. ñu mu jotee bëreel Cheikh Super Jamono bërewul la ñoom lamb moo tëre di rek. lamb moo tëre di quoi. combat bi ñoom ñaar kenn ku nekk ne dafa am revanche. kii ne da daan sama rakk kii ne ko da ngaa daan sama mag. waaw waaw loolu combat bi combat revanche la. waaw ndaxte Cheikh Super Jamono dafa daan euh, Boy Zil. waaw. loolu làmb la déggoo mën a làmb jànq la du yomb bu at bu soufflé ñoom ñaan ñëpp dañuy dër wut si seen morom mais dama ne la làmb la làmb bi du yomb mais nañ ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu sedd guy ci barke yonent bi. sedd gu gaaw wala mu yéex. non day gaaw combat bi day gaaw ndax xam naa sama waaji du xaar barke Seex Saat bi du xaar mukk te bu at bu soufflé di ngeen xam na ne liggéey na waaw mais tey Idy fii dafa bëri ay ancien goulard de dafa bëri ay ancien goulard ay waaye simple tool ay ancien goulard laa bëgg Idy mais ancien goulard gi kenn du sax mbëri kii dama ko dama ko gëj a gis laa moo tax xamut ma sa la mais mbëri démb. non yow fu mooy sa gaañ. si <laughs> la nekk champion. nice maa lay fay. mais da ngaa bàyyi laa muñu wala lan. bàyyi ñu may doxal combat daa sotteegul rek. waaw. da rek. daa sotteegul rek daa yéex rek. ñaata eh, am na deux défaites benn victoire. waaw trois combats maa mujj a daan kii rasa faas laa mujjee daan waaw mais boobu ba léegi bëre waatuma nag quoi si wala wala ci ci adversaire si manager yi rek Matar njaay moo yor sama licence mais daf may xaaraloo rek dama ko bëggoon récupérer sax xool keneen koo xam ne moo ko gën a gaaw Matar kàppoo ah. moom maa ngi wax ak moom boobu ba léegi affaire yi sottiwul booy yi génn ko so non man kay sama morom rek ku ñëw ma bëre maag Ziza actuellement nii ñoo bokk écurie combat Ziza ak Petit Niang Ziza si suñu loxo préparé suñu bi tamit suñu loxo préparé mais boobu ba léegi bëréewu ma te samay morom kese fi nekk yow xam nga lool. mais tey sa morom yi génn fi génnaat am nga ñoo xam ne ba ngaa bëri ñoom ku si mel ne kanakan. ku si mel ne kanakan ñoo xam ne ba ngaa bëri. waaw. non xam nga tey làmb ji am na ay boo yoo xam ne sax boo leen dëkkee dañ naan la kii xaw ma leen comprendre kii xaw ma ko kii bëre wala kii gëj naa bëre mais actuellement nii boo yi fii déclenché kuñ ma si jox ma bëre. billaay yow kuñ ma si jox ma bëre. waaw xam naa du ñàkk incha allah sama doomu de Idy ñëw seet si la euh, seet si la émission waxtaan ak bu ko defee adversaire moom mooy mooy ñëw combat de. waaw mais Idy Idy jàppal si combat yi Idy man laajal kii si buntu arène bi laa dëkk booy yi fii bëre yëpp ay Liss Ndiago booy yi fii bëre yëpp maa leen man barki Alxuraan bokkul sax booy yëpp maa mun mais instant yi pour ma sax problème la mais Idy si tànk yi ma bëre ci buntu arène bi laa dëkk bëreegu arène tijjee ba léegi bëreegu ma si te su si bëree stade bi man dama koy feesal ñoom xam nañ loolu sax promoteurs yi gars nañ taxawal affaire ren ci jàpp waaw waaw noonu idée rek sa caméra ba lii la kii kan la ndeysaan xoolal ma champion soq bi nga doon jarat de jarat xale yaa ngi mu nekk combat boo xam ne diggante Super Jamono limite la samedi la cey jamaay kee mais kenn sama caméraman bi cim caméraman day xees daay leel daay lamb ji ay caméraman xees lamb njabootu làmb yëpp du nuyu waa Pikine bu baax a baax a baax di jox seen waay tey kii ñu taxawal nag yaakaar naa ne kenn dootu ko laajte si làmb muy doomu Pikine di yaakaaru Pikine muy Ziza bu ikiri Ramdan Ziza ñu ngi lay nuyu. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi ñu rahiim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu waa ñaari waajur di sant quartier pikin bi ñu dëkk. ak suñu dëkkandoo yi ñu dëkkal ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen baalu tamit àq bu wér a wér ndax daam benn message boo xam ne foog ma jàllale ko dafa am suñu benn papa boo xam ne fi la nekkoon muy suñu papa papa yi ñoom Pape ñu ngi koy ñaal yàlla yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral si àjjana yi gën a kawe gay naa gay naa ko mi nga xam ne moom laa bëraloon moom tamit mu génn àdduna yàlla yàlla yokk leeram gay naa ko parce que bu dul dara moom bëre nañ fi barki démb moo njaay la génn àdduna yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral àjjana Moussa Balla Gaye mi nga xam ne tamit dafa génn àdduna te suñu xarit la woon ñoo bokk benn écrit yàlla na yàlla am ci moom yërmande te yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe xam nga di baalu waa koñ bi ñëpp aax parce que koñ bi nii fii lañ defee lépp quoi lépp lu ñu mën am rek ci koñ bi lañ ko amee quoi peut-être tey waa yeewu na am lu ñu xewloon moo tax tey gars yi ñëwuñu à 100 pour cent quoi mais ñi ngi jégguluwaat bu wér a wér di jégguluwaat bu wér a wér mais Ziza lu jël ki nga xam ne mooy Petit Niang daan ko def jël Cheikh Super jamono soit boobu lu ko waral. waaw du man maay du man maay jël combat quoi man moom du man maay jël combat dama am staff boo xam ne nii ñu ngi fii nii ci koñ bi quoi comme ku si mel ni Moussa Fall oustaz Badou Gueye Baye Ndiogu As Messi Papisco sama nijaay xam nga kon ñooñu ñoom lu ñu jël rek man dama koy jël wax dëgg yàlla parce que man nekkaluma fi kenn quoi ñëpp laa fi nekkal comme moom daa prouvé te suñu combat yàgg nañ ko taxawal muy échec. mais nag bu ko promoteur bi taxee taxawale rek amuñu amuñu lu dul bëre daal wax dëgg yàlla bëre rek. parce que tollatuñ fi ñuy xaare kenn quoi wax dëgg yàlla. toll fi ñuy xaaree kenn nga jël ki nga xam ne mooy Cheikh Super Diamono gis état de forme bi préparation bi noo ko préparé. waaw mais sant yàlla bu wér a wér ngi santaat yàlla bu baax naan alhamdulilah quoi parce que teg lu métti quoi wax dëgg yàlla parce que coach laay bari laa sana xam nga non aw ma seen fay quoi wax dëgg yàlla ak booy écrit yi ma doon nekkal nii quoi ñoom musa Cere booy yëpp yëpp ah. parce que teg nañ ñu ñu ngi dem antenne ñu ngi dem yéeg din xam nga dem salle. lépp daal dañ ko pare quoi wax dëgg yàlla lépp amul loo xam ne dañ koy bàyyi quoi parce que booy bëre koo xam ne nii amul respect quoi dafa am nooy internet ko amul la respect. amul respe amul respect parce que magum jëm bu dee nga ne nit moo la mag ba pare ngay wax ak moom tem ba saaga leen rek laa ko mën a fajee ci digg géew gi te yàlla xam ne ak yonent bi billaahi wallaahi laazim maa ngi santaat yàlla bu baax de mais billaahi barke sëñ Abdou Lahad mi ma yaakaar boo tegee sa tànk daw jël tegee sa tànk ma daw jël ko. déggoo li ma la wax man dew ma ci làmb di négocier wala dem ci làmb di benn bennal ñëpp xam nañ sama mënin mooy songu songu laa mën te du ko bàyyi moom laa songu lu ma 18 combat xam nga am si ay 13 victoire du ko bàyyi bu tegee tànk bi ma daw jël ko déggoo li ma la wax ça dépend ci moom rek. non xam nga ba léegi nii mosul la gis ma yooru fi mais man dóor naa fi nit dóor yi saa yoo yooroo nga. xam nga li ma la saay bu ma yooroo rek yam naa moom boo taxee sax ma yooru déggoo li ma la Cheikh Super Jamono. boo est-ce que nga daan non Mandela moo ko dàq bëri téeméeri junni yoon te damaa yooru dem daan ko kenn rek laa dem ci moom échec muy Pambaay. est-ce que non xalaatu ma ko sax parce maa ngi santaat yàlla bu wér a parce que li may wax naaguma teguma ko fenn jamono jëye si ginnaaw fi nga tegoon combat bi xam naa ko xam naa ne bu arbitre bi sifflé foofu moom doo doo ko fa teg parce que man bambara laa séeréer laa saraxule laa su ma neexee ma ne sama mbokk saraxule yi am ma ko su ma neexee ma ne sama mbokk séeréer yi bonnom te moom déggoo ci dara nee naa la nag bi mën nga ko gas ba mu xóot nga suul ko teewul deret jaa ngi dund te wax la xam nga li may wax baax jant yi am na dagar waaye màttu ma ah jaan ji am na dagar waaye maatuma maam Mor la dem maatu waaye man maatuma xam nga di question wax pour dara quoi ñun dañuy santaat yàlla bu wér ñun dañoo war a santaat yàlla bu wér a wér ans laa toog bëre ma ma ñëw def preuve te man maa ngi def la nga xam ne du sëriñ du dara du gàllaaj teguma ko fenn si mbiru yàlla laa ko teg parce que su ma génnee sama yaay mi ngi may ñaanal sama papa mi ngi may ñaanal te maa ngi dox si ñoom lu bëgg ñoom ci laay dox xale yu ndaw yi li ñu bëgg ci laay dox sekk ak sama waa koñ yëpp jàmm tey open presse bii ngay gis du man maa ko def de sama nijaay moo ko def Papisco moom moo ko def préparé woon pour def dara parce que dama xawoon tooy quoi en plus parce que entraînement yi moom métti quoi xam nga. six ans nga toog deux ans bëree woo tey ñu gisaa nga ñëwaat takkaat si ngeen wàccaat si arène nationale gis nga xam ne waa écrit ram daan nañ la daree ki nga xam mooy pigi ñëpp génn ban affinité am ak mbëri waaw xam nga taxaw boo gisee ma téye ko nii Fallou moom moo dirigé 100 pour cent Pikine ñun 100 pour cent Pikine mu ñuy def mooy 100 pour cent jeunes yi quoi jeunes yi dañuy bañ ëllëg suñu moroom ñun feebar mbaa dara dara parce soo ko ngi nii dañuy xëy ñuy dox social ak Alaaji Mbay ak grand Fallou mi ak ñoom grand comment parce ñun dañoo ñun Pikine ñoo war a dajaloo jamono ji Pikine dañoo xaw am benn problème boo xam ne nii mooy mag ñi ñoo war a defal comme ku si mel ni suñu papa dégool Jules Baldé ñoom ñoo war a defal Pikine quoi wax dëgg yàlla parce que ñun amuñu lu dul ñoom Eumeu Sène moom la Eumeu moom suñu papa moom moo jiitu boo ñaar topp si ñoom Ama Baldé topp si Sokh ñëw gars yi ñun ñëpp topp seen ginnaaw xam nga te dañoo war a defaraat pikin bëgguñu ëllëg loo nga xam ne ni benn mbër daf am problème di feebar wala dara ko dañoo bëgg di dox si social di jàppale ñëpp tamit quoi aussi wax dëgg yàlla waaw. mbaa xam ngeen Jara 2 laa doon kontaagal ci combat bi bokkuñu écrit moom laa doon kontaagal Jara 2 laa doon kontaagal. ak damay contact ak jërëjëf ak ñoom sox boo yaa ngi nii ñoom démb sa ngi te boo yëpp am combat nii ñoom ñëpp laa dem contactal parce que loolu ñun dañoo wóolante man damay sox damay sol yëre jërëjëf ak yëre ñoom coon damay sol parce que ñun dañoo wóolante ñun man damay dem sox guddi gi dafa may woo ma booy man de jënd naa lii ñëwal ñu lekk ñu bokkandoo lekk quoi loolu moom solo nit booy ànd ak moom da am si moom confiance xam nga ay jamono tolloon naa fi jamono boo xam ne pour sunu sama waa ko ñu gis ma problème lay doon dama yaakaar noonu dama yegg te ma ñoom ñoo ma yóbbu woon ba may nekk xale mbapat ba léegi may ànd ak ñoom tey ji ma toog benn recul boo xam ne gisuma leen ma toog tegle ñaari defet mais ba ma retourné ba xoolaat leen ñoom ñëpp nii non fu ma dem sama xel day dal déggoolu ma su ma turnee ba gis tête yi ku ci mel ni Cheikh Omar Tamsir sama nijaay grand père Faye yàlla na ko yàlla suñu borom defal jàmm sama xel day gën a dal barke Seydina Mouhamed ay ñoom Badara Thiam Moussa su ma leen gisee sama xel day gën a dal dëgg yàlla aw ma moom lu may tiit wax dëgg waaw en ci làmb duñ dugg stade yow lan ngay wax waaw loolu dañ ciy dañ ciy waxtaanaan parce loolu Bira moo géré loolu Bira dafa am sa benn rax boo xam ne bu tudd Bira wax dëgg yàlla moom lu mu wax dama koy def wax dëgg yàlla Bira parce moom moo géré affaire yu autorité yi moom am na lu ñu jot a wax na ñaari bologu billet quoi te ñu ngi xaar suñu papa Amadou Diallo jëndal ñu bologu billet quoi parce que moom suñu kilifa la ñu gis na politique sa yaa ngi fi ñëw ñëpp quoi ñun bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn autorité yi nañ ñu jàppale parce que Pikine Guédiawaye la derby la moom dafa am ñoom maali Gakou fee man nag ñoom Jara laa fi am ay ñoom As Messi ñoom Modou Lo Cissé man ñooñu laa fi am man yàlla dafa def ni ñu may àndal ñëpp nii ñooñu rek laa am fii ñu may àndal rek laa am parce que Fallou mii mi ngi ciy waxtaan moom am na lu ñuy doxal tamit quoi ñu ngi santaat yàlla daal di santaat yàlla bu wér a wér waaw mais damay lancer benn message rek di wax ni tamit keroog li amoon si signature Ama beeg Modou Lo bi rafetlu wuñ ko quoi ñun waa Pikine ñu dañoo xaw a sikk tamit quoi parce que dëgg duñ ko nëbb dëgg duñ ko nëbb de parce ñun dëgg la ñuy àndee parce que muy man di soq ñoom jërëjëf dëgg rek la ñuy àndee bu fekkee Ama dafa dugg gars yi di ñëw nañ leen bàyyi bañ dugg ba pare parce que àddina amul solo tey ji li ñu def nii day tax combat bi dam barki de maak Ama ñoo doon wax ma lu bëri kon ñu ngi jéggalu tamit waa Parcelles bu baax a baax di yarat waa Pikine yi lañ gën a nekkaat nit parce que ñun waruñu ñu xas ñun sandi ñun Dominique lañ juddoo yaroo syndicat dof amu fi parce que Pikine nag les stars yëpp dëkk Pikine les stars yëpp dëkk borom alal yëpp Pikine lañ dëkk. waaw Jamaïcain xam nga ndaw la xale xam nga xale bu ndaw la parce que tey jii bu nekkee xale moom c'est pas la première fois mu dëgg sama combat moo dëgg sama combat kii sama combat ak Dame moo ko tëggoon ndar kon maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla jàmm tamit quoi. di wax ni yéen tamit presse yi yéen yéen a war di defar yéen tamit parce que 100 pour cent ay nitu dëgg lañ parce que yemale leen comme ni ngeen ko yemale nii yàlla leen suñu borom defal jàmm di wax ni teen bu dee wax nañ fi dara lu ñaaw rek ñu ngi jégalu di baaluwaat ak waaw. waaw ma ne man leer na ma man Ziza man leer na ma man mën naa bëre mën naa xeex mën naa lépp su ma neexee mën naa ñëw téye sam moom bu dof dof loo man def ko nu ma def moroom moom bëreloo ko quatre-vingt-dix minutes parce que man damay football quatre-vingt-dix minutes kenn xamul man xamuma luy am suba de yàlla rek moo xam te ñun dañuy santaat yàlla bu baax a baax parce que suñu waajur yi ñu ngi ñaanal di santaat sama waa koñ bi di santaat sama waa koñ aw ma lu dul ñoom di sant sama doomu nday soq jara de booy sil xam ñoom dembis booy is amagul combat ñoom Moussa Cere xam nga ñëpp maa leen di sant écrit bu ma nekkoon ñu ma doon jàppale contact laa sana ñëpp maa leen di sant di woo autorité yi ñëpp waa groupe Tambooy ak yi président bi ñu ngi lay sant bu baax di sant sama nijaay yëpp ñu fi nekk di ñaanal yàlla sama nijaay grand père Faye yàlla ko suñu borom defal jàmm xam nga Tamsir fay yàlla na ko yàlla defal jàmm Pape Samba góol bu mag bi waaw xam nga di bëggee ñëpp quoi di sant sama ñaari copains yi xam maa taxoon ñu waroon ñibbi Italie ñibbiwu muy Ahmed ak Mario mi maa ngi leen sant bu baax a baax ak maman Bousso waaw ah, Pam Mbakete maa ngi koy sant bu baax Malick Biiru yóbbante bi ñëw na parce que ba nga jógee Angleterre yónne li ma sol nii moo ma ko jox kaw ba suuf Malick maa ngi lay ñaanal yàlla jàmm di ñaanal ñëpp jàmm ñoom yaa saa waa balcon ñëpp xam nga di gërëm daal waa koñ bi daal parce que man aw ma lu dul ñoom wax dëgg yàlla di baalu tamit ñëpp ak ah, quoi di wax ni na ma ñëpp ñaanal yàlla suñu borom may ma ndam parce que yàlla rek moo yor ndam yàlla yàlla may ndam